maa ngi gërëm bu baax ñi fi ñëw teew fi pour fekkee suñu jàkkaarloo bi je crois que ñi ma jiitu wax nañu lu bari ci li nga xam ni mooy solo jataay bi tey may doore sama kàddu rek ci turu leader yépp pour di jaale Ousmane Sonko ak parti Pastef li leen dal metti na diis na ci moom ci direction partem ci partem ak ci ñi ci bokk ñëpp mais surtout ak coalition bi yëpp parce que ay xale lañu yoo xam ne doon nañu jàkkaarloog ñoom ji seen taxawaay ji seen Pastef gis seen cawarte ci li nga xam ne moom lañ bokk yàlla na leen suuf sedd bi ñu weesoo ci njaal boobu ma gërëm ci turu leader yépp bépp acteuru Yewwi Askan Wi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw depuis six mois kenn nelawatul kenn toogatul ñu ngi daje ñu ngi waxtaan ñu ngi liggéey pour que dans les toutes les circonscriptions électorales ñu bokk fa fàttali na ko léegi ñooñu amee nañ leen jukkal et ngi leen di féliciter di leen remercier dama bëgg aussi ñu xam ni nous sommes fiers de parce que nag euh, élection locale nawetaan la mbirum kër la koñ la quartier ñëpp ay bokk ñëpp ay fekke ñëpp ay yëg seen bopp seen taxawaay ak seen liggéey wane na ni li ñuy def ñor na leen mais surtout la confiance qui nu lie en vraiment loo xam ni la dañ ko rafetlu moo tax ñoom ñëpp ci turu leader yëpp ñoo ngi gërëm di sant xale mag ndaw góor ak jigéen di leen nag wax ne day soog a door élection bi du rek déposer liste déposer liste étape la bu rëy bu am solo ci xeex bi mais ñu ngi jëm ci campagne mais surtout ñu ngi jëm ci vote loolu la ñuy waajal tolof tolof yeeg gàllankoor yee lu ci mënte ne ñun ay responsable lañu ñu ngi waxtaan suñu biir incha allah lu ci nekk daañ ko jubbanti continuer parce que nag dara mënuñu dévier ci objectif bi ñu mooy gagner élection yi ci kàttanu yàlla gagner élection yi kenn mënuñu ko tere ci kàttanu yàlla moo tax gaañe di def li ñuy def donc ñuy engagé camarades bu kenn baisser les bras xeex jusqu'au bout wax nañ ko léegi action yi nga xam ni moom la ñu nar du moy kenn préfet sous-préfet agent administratif boo xam ne dugg nga ci complot bi dinañ dal sa kaw parce que nag am na lu kenn dul nangu am na lu kenn dul nangu et je veux que chacun se ci yenn pour di donc gërëm ñooñu bu baax félicité leen parce que élection yi nag gars yi dafa am fu fuñ ko teg du ma répété wu mais bañ ne élection yi mooy déterminer posture 2024 challengé nañu askan wi dama bëgg askan wi am la bonne lecture du contexte li ñu challengé askan wi mooy dañ ne élection locale yi mooy déterminer deux mille vingt quatre suñ ko fayee deux mille vingt et un deux mille vingt deux deux mille vingt quatre du am nañ leen tëcc ba ñu xam seen bopp c'est-à-dire faut les dissuader faut les dissuader de penser qu'il est possible que ñu doon candidat deux mille vingt quatre parce que du ñun ñoo ko wax ñoom ñoo ko wax ñoom ñoo lié local yi à la présidentielle. je veux que ku nekk comprendre enjeu yi ñu xam ni loolu moo am solo te kenn bañ a juwatloo moo tax élection yi ni mu demee bettuñu comme que dañ ni mooy déterminer deux mille vingt quatre moo tax ñu ciy def liñ ciy def liñ ci def nag kenn du ko nangu parce que su ngeen xoolee liste yi ñu bëgg a pour des motifs fallacieux élection locale mooy scrutin bi nga xam ni la classe politique et le législateur on fait en sorte que ñépp mën bokk ci nan dañu oyofal lépp dañu yombal lépp su ngeen xoolee dossiers yi ni mu demee lu oyof la su ngeen xoolee dépôt bi ni mu demee lu oyof la dañu permettre même pour que yëf ki leer que mandataires yi suñu déposé seen liste dès le lendemain mandataire bu nekk mën nga ñëw préfecture ou sous-préfecture xool listu keneen bu ko kenn fàtte te démb tey ak suba mandataire bu nekk mën nga dem xool listu benn bokk yaakaar listu keneen ak keneen faut qu'ils en usent pour qu'ils comprennent c'était quoi les motivations du législateur et de la classe politique en faisant de ce scrutin une démarche inclusive, participative et citoyenne. na ñëpp a dem vérifier parce que yëf ki nag dafa yomb gars yi dàq ñu ñu liggéey ku leen tere mu jaral leen xeex ak dee parce que seen droit la dama bëgg looloo ñu jàpp ko parce que loolu mooy nature scrutin bi dañu bëgg ñëpp bokk ñëpp fekke ñëpp nekk ñëpp am ba tax na Ousmane mettre na en garde tout de les autorités administratives La résolution prise tout à l'heure en rapport avec nos avocats et avec nos conseils mooy que ni duñu exonérer kenn ci dara on poursuivra chaque responsable ou tout responsable qui aura été à l'origine d'une forfaiture ou d'un manquement parce que nag kenn waxu leen ñu doon ay auxiliaire majorité ils sont payés par nos sous pour qu'il soit à équidistance de nous tous de tous les acteurs am na yoo xam ne kenn waratu ko nangu xam nga réew mi li mu lay li ko jaral kooku nañu koy jaral li mu leen jaral suñu ko jaralee rek léegi moo bunt feeñ donc je voudrais en attirer l'attention des autorités administratives parce que retour yi ñuy am dalul xel motif yi ñuy avancer taxawul parce que loi boo gis da ngay lan moo ko suuxat lan moo ko wund base élection locale dañu bëgg mu doon une élection inclusive ku bëgg bokk bokk ku bëgg bokk bokk ci koñ bi ci kër gi ci quartier yi donc loolu na ko ñëpp jàpp na ko kenn xam ñëpp xam parce que duñ ko nangu bi ci des mooy ni nga xam ne noonu la administration bi taxawee bii pa dafa ñaaw dafa rafetul parce que notion de liste incomplète loi bi que ce soit la partie législative ou la partie réglementaire da ko waxe et c'est le seul scrutin pour lequel on permet jusqu'à la jusqu'à terme des 72 heures que mandataire bi di corriger di rectifier c'est le seul scrutin pourquoi defuñu ko ñi ci des parce que xam nañ ni dana jafe dafay diis dafay metti et c'est complexe de quel droit des autorités administratives s'arrogent le droit de dire toi on te rejette toi on te garde yow on te permet de corriger de compléter aux autres on leur leen ko defal luñ ndeyam loolu mooy problème bi am na lu kenn dootul nangu am na lu kenn dootul bàyyi mu jàll parce que réew mi bàyyi mu jàll moo tax ñu egg ci fii ñu nekk parce que les gens se croient tout permis mënatul ne kii élection la gis nga élection yi nit ñaa ngi koy waaj depuis cinq ans moom ak àllaaxiraayam loo fa yóbbu loo fa dawalul doo ko fa fekk donc nit ñi mën ñu liggéey ba egg si ñu bëgg a xëpp suuf ci seen liggéey kenn du ko nangu